رديت عن المولى تعالى الذي ربى وادي واغناني واكرمني رباه اليوم أبدا بذكري ak gis nga isbu tarxiya nga xamante ne sëñ Lamine Diop euh, moo jiitu si euh, nga sëñ Lamine Diouf mi nga xamante ne nii euh, moom la sëñ Youssou yebal ak delegation bi ñu yor accueil yu ngan gi ak ak bi nga xamante ne ñoom la ñu àndal. liggéey liggéeyam bu màgg boobu nga xam ni xarajtu yawma sabti saaminu xasar bi xidmatin muxtaari fii sahri safar liggéeyam boobu nga xam ni nag moom sëñ Touba nee na lam fa doon wuti tonawu na ca kon ay délégation bu mag boo xam ni ministre de tourisme Gabon moo ko jiite ak labbe muy la bi nga xam ni moo yore euh, charge kër labbe bi nga xam fa la sëñ Touba juróomi at ci Mayomba ak maire adjoint wu dëkk ba ñoom ñoo ànd ànd nag ak euh, membre karawaanu Mayomba bi nga xam ni ñoom la ñu likkatool di liggéey ci topp jaar-jaar sëñ Touba ca Gabon war ñëw fii tey jiitu Touba seet sëñ ñu bawoo Gabon ñoo xam ni ñëw dëggal si rek liggéey liggéeyub sëñ Touba bu nangu ca Gabon moo leen fi indi muy kàddu yoo xam ni euh, njiitul réewum Gabon ma nga xam moo fa nekk muy président Oligui Nguema ak premier ak ministre des affaires étrangères bi nga xam ni mooy Régis Onanga Mamadou Ndiaye ñoom ñoo ñoo likkale liggéey boobu

والسرح والخربان نجاتي من الأعداء والبار والبلاء غريبا وحيدا من عزيز ملا الجربان هداني تعالى بعد ما كدت هالكا بجاه الذي خسينا الهجم والغرباء أنادي في سر وجهل وأرتجي سلائي وإسلائي الأهل والتربة سلمت الأولى للعدا ثم كانني وكنز كتاب النبو يكسف الكربة سلمت الأولى للعدا ثم كانني وكنز كتاب النبو يكسف الكربة هداني بي ربي وأهدي بنوري إذا سأرى ذوي البعد والقربى إلهي لا تضع يقلني وسلما وجد بامتلال سما ولتؤمني تربى لك البر والبار الذي قلتني له ففي البر أبل الأمن ولتكرمي جنبا غلام إلى غلب إلى ما يسرني وببصر الأخيار أبدا جملة الهدى والخيار يالي منك يا من قد العباس يقلب خال منك ربي تفتن علي اليوم Thank you. moom soo ko sàmmoon la tamit bi ba léegi moo ci nekk di ñu ci taxaw waaw moom moo leen moo ànd ak ñoom moo leen moo leen ji jiite waaw musique bi des waaw nga toog na ñëpp àgg suuf ñëwee fekk si la mooy la Serigne Touba waxoon ne bañu ma ko toppaat sama mboor noo ngi sant bu baax karawaan bii nga xam ne liggéeyub sëñ Touba bi rek lañuy wale wane ngi ñaan nga yàgg fi téwér nga yàgg fi loolu téwér ndax yow day keroog bi sëriñ bii dem ci géej gi la sa waajur wu tedd wa gane jamono moom nga dégg Serigne Moussa ni atum jëy sa sin ma cay tubaab i ya waaye Serigne Bassirou moo wanewaat ne yaa war a toog fii ba tey làbbet maa yomba ñëw te sëñ Moussa Ka dañoo woolu làbbe ya forom ngir jaaxle ñu ñëw ne delloo leen kii mbaa baax baaxee leeram gi sar na ci asamaan ba jabaroot sar na fi suuf dambe na mulkeeg malakoot salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu sëñ bi ñëw nañ fii fi sawet ngir indi liggéey bu màgg bi nga xam ni moom lañ doon def ca Gabon te di ko defee ci sa ndigal sëñ Fallou Bousso dooroon ko foofa muy topp jaar jaari sëñ Touba barab yi mu nekkoon ci Gabon fenn fu ci ne ñu def fa mandarga moo xam ne dina wane ni fii sëñ bi ne woon na fi la ca jiitu ci mandarga mooy maayumba ba mu doon sampi bantam ñu di ko simpi sànni indi woon nañ fii jumaay ñeent sooroor joo xam ne woon la ko joo moom lañ ko bëgg fa sampal bëgg nañu nag noonu ñu ko nar a defee maayumba muy làmbar na muy njole muy foo xam sëñ bi ne woon na fa ñu war ko faa def délégation bii fi ñëw nag ministre Adjaye noo mi jiite leen ak délégation évêque bii nga xam ne ànd na ak moom ak maire Mayumba ñoom ñëpp dañoo ànd ak ñun foofu ca Gabon di ñu jàppale ci liggéey bi ba jii ñu jàpp ni dañoo war a ñëw agsi fii ci yow jottali ko wane ànd gañ ànd ak ñun waajal nañ nag ci ndigalul njiitu réew ma ak ministre affaires étrangères sa doom yooyu ñëwoon nuyu si la fii wane ni moo ñu taxaw ci liggéey bi ni suuf yi nga xam ne moom lañ leen doon laaj danañ ñu ko jàpp ndalal ba fenn fu ci nekk lañ fa bëgg a def ci turu sëñ bi ñu mën ko faa def loolu nag li tax mu mën a am ba agsi fii seexale woon nañu maa yomba lambar na ak Touba gi maire bi jógoon dem fa waaye ci njiitu sëñ Koso Mbàkke mii na nga xam ne moom la ñu boolee loon mook Xaadim ci liggéey boobu ñu amale ko ba mu agsi fii tey ñu ngi lay sant baax tey ñaan loolee nag ni ñu yéene bëgg caa dem ci fukki fan ak ñeent ci weeru juillet wi ñu jëm ba ñaar fan ak benn ak ñin ko àndal ñëpp buñ demee ñu mën a teg ay xeer tam sutti te lépp it yàlla ko fekkee fii ci ak weer ñu andil la loolee fa sam waaji sa sa maam ji liggéey muy Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul foofee la ñu bëgg lépp loo xam ne xañoon nañ ko fa te tey jii ñii ñoom nga xam ñoo ji ma taxaw ngir delloo ko loolee ndam ye yëpp ñoo fekk si la fii Mbàkke kon daal xam naa dañuy wax ndegem gan ñi ñoom dégguñu ci làkk wi ma wax ñu jox sëñ dàmbay mi mu jot li di ñu wax ngir ñoom ñu mën cee jot bu baax. waaw damay répéter rek ni ministre bi mi ngi tudd Pascal Siffon. maanaam mu doon mu doon natif de Libreville maanaam doon koo xam ne wax dëgg yàlla mbokk la ci ñun ak ñëpp maire maire Mayumba bii nga xam ñëw na ànd ci tamit surtout Samori Touré la maanaam Samori moo jur ki jur waajuram bu jigéen moom moo ñëw tey jii teew si fii ministre de tourisme du Sénégal it accompagné na ak lim am ci ay directeur ñoom ñi ngi ñëw toog fi ak directeur de cabinet am soxna si ñu doon nuyoole tamit muy moomu liggéey bi ñuy def muy karawaanu ba moom moo ko yor foofa di ko doxal ci ci wet yëpp ba ñee ñëw mu di leen jàppandil dikk ga ak dem ga ak yëpp ñoo ñëppit nag ak réewum Gabon ca njiitul président de la république ba nga xam ne moo yor réew mi euh, ñi ngi ñaan ci ñoom ñëpp seen ak premier ministre ba ak ministre étranger affaires étrangères bi ñu jàppale ñu ñu jàpp ñu ñaanal leen bañ am ndimbalu liggéey ba ba ñuy def ba li ñu yéene ca Gabon ñu ne mu mën a jàppandi fi ñu sëriñ bi sëb sët moo toog sa kanam di bëgg nga ñaanal ko ñu dëgër di doomi Longoor di sëtu boroom Saam asalaamaaleykum chers invités chers hôtes sëriñ taxa vous transmet ses chaleureuses salitation et vous fait montre de son immense plaisir de votre visite qui n'est pas un hasard tout je discutais avec le maire de Mayomba, qui est un petit-fils de Samori Touré, qui renouait des liens de parenté religieuse fraternel avec Cheikh Ahmed Bamba. Donc ce n'est pas un hasard. Tout à l'heure, il me disait, on avait un vol et on a un retard. Donc ce n'est pas un hasard que nous tombions sur ce jour saint de vendredi. Serigne Nous prions le bon Dieu de vous donner une longue vie et une santé de faire Ils sont venus ici avec le ministre du Tourisme, avec les, euh, les employés de l'ambassade du Gabon au niveau du Sénégal, avec les évêques, avec une forte délégation. Et ils demandent des prières pour la réussite de leur projet. Parmi les projets à Mayomba, une grande mosquée dédiée à Cheikh Ahmadou Bamba. Un grand institut islamique Mame Diarra Bousso pour éduquer tous les Gabonais, les Gabonaises et tous les gens qui viennent de partout le monde. Et aussi de matérialiser le travail de Cheikh Ahmadou Bamba partout au Gabon. Comme on a l'habitude de le voir, Serigne Touba voué une importance particulière à son séjour au Gabon. Donc ils sont venus ici pour demander vos bénédictions, votre soutien et vos prières. Voici l'évêque qui est venu, qui n'est pas un hasard. Le jour où Serigne Touba rencontrait les infidèles et l'évêque, il, il avait refusé de donner sa main aux autres, mais il a tendu la main à l'évêque parce qu'ils ont des liens de parenté. en matière de religion. Donc, en un mot, ils sont venus demander vos prières pour la réussite de tous les projets et que Dieu leur donne une protection totale. jërëjëf sëriñ bi. nee na ñoom seen réew ma transition moo ko yor boo xam ne président Oly Nguema moo ko jiite te it bëgg réew ma jàmm rek jafa daan am di fa am ñuy sàkku ñaan nag ngir ñoom ngir réew ma jàmm ne fa ba lii nga xam ni moom lañ yéene lépp. loole lépp ñoom mën ñu caa jàppale ba ñu ba fañ bëgg a àgg rek mu àgg fa. Euh, mesdames, Messieurs, c'est un honneur pour nous d'être euh, reçus par vous, sachant très bien que en de telles périodes, euh, vous vous reposez et vous allez et vous avez et vous avez bien voulu euh, faire une entorse à votre programme pour nous recevoir. Euh, sachez que c'est un honneur pour nous. Je vous transmets également euh, les salutations chaleureuses du président de la transition, le général Brice Oligingema, qui me charge de vous transmettre un message concernant euh, la, la, la, construction euh, de la mosquée comme prévu par les textes de Charamidou Bamba au Gabon à Mayumba. Par la même occasion, le gouvernement gabonais, cette année, euh, se propose d'encadrer la caravane touristique religieuse euh, des, de, des Mourides au Gabon. Euh, nous allons mettre à disposition quelques bus et assurer euh, le carburant pour le transport Libreville-Mayumba. Je vous présente également la délégation qui m'accompagne, au premier rang desquels l'évêque Madega, qui est le responsable de Mayumba, euh, qui a bien voulu nous accompagner parce que l'Église catholique est propriétaire du terrain, vous le savez, dans lequel Sharamidou Bamba a vécu 7 ans, 7 mois et 7 jours. Avec moi également le maire de Mayumba, à ma gauche, qui a bien voulu nous accompagner pour, pour, pour montrer bien sûr l'importance euh, de cette mission. Permettez-moi, Monsieur le Calife de vous remettre les présences symboliques qui nous accompagnent. C'est un tableau. C'est un tableau. Un livre de Mayumba ce tableau, ce, tab... ce tableau au centre, vous avez la carte du Gabon. Voilà. Euh, à l'aide d'une pierre euh, la plus précieuse du Gabon, qu'on appelle la pierre de Mbigou. À côté de ce tableau, le maire de Mayumba va vous remettre les clés de la ville de Mayumba. Nous savons que, nous savons que les pèlerins viendront à Mayumba. Mm. Nous savons que les pèlerins viendront à Mayumba et euh, vous êtes leur guide spirituel et nous avons pensé vous remettre les clés de la ville en sachant que vous n'allez pas pouvoir le déplacement. Euh, en même temps, à côté de cette clé, vous aurez, euh, c'est le maire de la ville qui vous remettra cette clé, de Mayumba. <laughs> L'ouverture du mouridisme et de, des mourides En principe, c'est là-bas où on devrait la donner, mais comme euh, le, le, grand calife ne peut pas se déplacer, eh vous gardez Mayumba entre vos mains. Et je laisse l'évêque vous présenter le troisième cadeau. Le troisième cadeau, c'est la torche traditionnelle faite à base de la résine d'okoumé. Et le koumé est l'arbre qui produit le contre contreplaqué. Et la toute première usine de contreplaqué au monde, c'était à Port-Gentil, au Gabon. Et la torche, est la lumière. Et à côté de la toche, je vous donne aussi ces deux Bibles que nous considérons aussi la lumière pour éclairer nos pas, comme le Coran éclaire le pas de nos frères musulmans. Nous remercions pour ce cadeau qui scelle la présence de Cheikh Amadou Bamba à Mayumba, au ah. Gabon et ici à Touba. Et nous, comme ceux qui avaient accueilli Cheikh Amidou Bamba, nous vous donnons aussi d'implorer la grâce divine pour que le pèlerinage se passe très bien, mm-hmm. que les bénédictions tombent et ah. sur la communauté de Mouride, ah. sur le Sénégal, sur le Gabon, tous ses habitants et sur l'Afrique entière et sur les parties du monde qui souffrent. Euh, Excellence, le Khalif dit qu'il est très honoré de votre présence ici à Touba avec l'importante délégation qui vous accompagne. délégation yi ma di ko baax. di ci di ci di ci fàttaliku bu il dit qu'il mesure à sa juste dimension euh, l'importance de votre délégation et cela également lui donne des, des souvenirs très importants euh, certainement par rapport au séjour de son grand-père au Gabon. yitte yi nga xam ne def nañu ko xalaat ko ca Gabon ñu def ko itteewoo Sëriñ Cheikh Ahmadou Bamba mhm. jóge Gàmba ba fii mhm. loolu euh, fa tabaarakallaahu def nañ lu mhm. loo xam ne lu baax la dundal euh, euh, liggéeyu Seex Ahmadou Bamba ndax liggéey bi mu liggéey mel na ëpp ci pour pour liggéey. Mhm. il dit que vous avez fait un acte de bien consistant à vous déplacer depuis le Gabon jusqu'au Sénégal et cela montre l'importance que vous accordez à Cheikh Ahmadou Bamba mais également à son œuvre à sa mission importante dont la plus grande partie a été passée et réalisée sur la terre du Gabon. am nañ mbégte mbégte mu ci seen ñëw gi ñu ñëw Touba mhm. te itam eh, soññ bu la ci noonu ci gën a gën gën gën gën a gën a gën fàttaliku liggéeyu Sëriñ Touba ci kawam eh, gën a gën a yokk sunu itte ci Gabon mhm. ba ak Gabon mhm. eh, mën a ànd war a ànd Eh, mm-hmm. mm-hmm. il dit que votre déplacement ici est un motif supplémentaire une exhortation si on peut dire pour nous permettre de mieux comprendre et de saisir l'importance de la mission de Cheikh Ahmadou Bamba mais également de raffermir ce lien indéfectible qui lie le Gabon à Touba et également toute l'importance et la considération que vous accordez à Cheikh Ahmadou Bamba qui a eu à séjourner sur cette terre du Gabon. kon nag loolu tax na jëf jóge ji ñu def yitte yi ñu def jóge gama bu ñu tubaab ñu ngi leen ci sant di leen ci gërëm bu baax a baax a baax di fas yéene sàmm léegi moom xam ne dox la diggante tubaab ak gabon il dit qu'il vous remercie infiniment pour ces pas qui vous ont guidé du Gabon au Sénégal, toute la distance que vous avez parcourue. Et il reste toujours déterminé, engagé à préserver ce lien de fraternité qui euh, lie le Gabon à Touba. <coughs> loolu na cër bu rëy il dit également qu'il est toujours disposé à maintenir cette flamme qui lie les deux pays le Gabon et Touba car ici au niveau de la ville de Touba le Gabon jouit euh, d'une importance particulière au même titre qu'au niveau du Gabon il y a une considération spéciale

les efforts consentis et surtout euh, les efforts que vous avez à accomplir depuis le Gabon pour venir jusqu'au Sénégal. Donc au-delà de ces remerciements pour le peuple gabonais et les autorités gouvernementales, il a une, euh, des remerciements particuliers qui sont destinés aux membres de la délégation qui ont eu la chance de faire le déplacement jusqu'à Touba. jërëjëf Mbacke jërëjëf Mbacke jërëjëf. delloo itam. cant. ak jàmm. Il dit également qu'il remercie euh, les autorités gouvernementales qui vous ont facilité cette euh, relation et cette coopération. Et il dit qu'il réitère ses, ses prières différentes et demande au Seigneur d'accorder la paix, la prospérité au peuple gabonais et à tous ses habitants. wàllu <laughs> mhm. mhm. diine mhm. ñëw gi mu ñëw ànd il dit également qu'il se réjouit euh, de votre euh, délégation mais particulièrement de la présence euh, de l'évêque de Moya qui dirige cette euh, délégation religieuse et il dit également qu'il lui adresse ses félicitations et se dit très honoré de voir sa présence parmi la délégation gabonaise jërëjëf voilà il dit merci beaucoup encore et vous remercie d'avoir fait le déplacement من الهدى الجنة الذي قد كان يرجو إجابة رسل المدى والهمة والتكفي الغدوان هديت الذي قد كان J'espère que la réussite avec le Khalif a été une consolation. vous attendez patiemment. حجة الغادس وسم مهنيا على المصطفى من نوره نهويا سبان أي الله يا رحمن يا من أخذني فسل بتسليم على خير من لبى أي الله يا رحمن يا من أخذني فسل بتسليم على خير من لباك أي الله يا رحمن يا من أخذني فسل بتسليم على خير من لباك C'est juste pour vous montrer tout l'état qui a été aménagé aux autres de l'organisation. C'est une résidence que dans un style euh, islamique pour accueillir les autres du Khalif. Vous savez, parce que Touba, vous savez, euh, toute ville doit avoir une fonction. Touba a une ville, est une ville qui a une fonction religieuse. Parce que c'est une ville qui a été fondée exclusivement pour la déclaration. Soyez les bienvenus en tout cas. نبس الذي قلبته فلتبدلا وجنبني الحجاب والكبر والكسبان أنلني كرامات وكلي بلا انتهاء بما فاق سني ولتسخن لي الصعبان مددت يدي يا مالكي راجيا لكم خريبا منيبا عن سلوى سفر الرباط يلا كن قريبا منيبا عنزا واكسف الرهبان نفيت الأذى عني فجل لي بأوبتي سريعا بلا كد ولي وسيل الأخبار لك سوري سيتني خادما نبي عليه صلاة منك تولي بها صعبا دعوتك بالمختار regret, c'est comme chez vous. En tout cas, nous sommes ici pour vous dire que nous ne sommes pas à même de pouvoir faire ce que le Khalif veut. Mais nous allons nous efforcer autant pour vous souhaiter les gens. Parce qu'il m'a, il personnellement que ce sont les 10 ou autres Donc, nous allons tout faire pour, être euh, pour, pour, pour vous accueillir. après, après, euh, en tout cas, partout on a prévu des salons, on a prévu des, tables de pour tout le monde. Après, vous allez sortir, vous allez à l'aise. C'est pas un hôtel, mais vous serez comme chez vous. c'est une, résidence que nous avons construite exclusivement pour les hôtes de chaque monde. Il y en a d'autres encore, certes. Parce que vous savez, là, c'est lié même à la vocation et à la fonction urbaine de la ville de Touba. Touba accueille toujours des hommes et c'est normal qu'une qu institution comme la nôtre soit à côté de la ville les efforts euh, la caravane, Nous en sommes conscients. Tout le monde est informé ce que vous faites pour accueillir la caravane dans de très bonnes conditions. Et tout ce que vous faites, vous le faites pour toute la communauté musulmane, mais aussi également tout le peuple sénégalais. Ce news moom, il a fait plus que ce qu'on a demandé parce que c'est lui qui a aménagé le, le débarcadère où le chef a descendu à Maïfa. Oui, il a, il a beaucoup fait vraiment. C'est tout ça, moi, aussi. Le chef a prié pour pour sur la dépouille de son de son grand-père. tey caabi mayoom ba. Ah. la jël dox sëriñ bi. ne ko yaay ubbi yaay tëj. am na ñu mënoo ñëw waaye bu mënoo ñëw yaa koy def. waaye fi mu ñëw tey jii léegi waaw loolu feeñal ngeen ko bu baax. Ah, dëgg la bu baax caabi ñu lay yëkkati. Et je vous cache pas, euh, je sais qu'il est même avec nous. Mais à côté de nous. physiquement il est pas là mais il moom mi moom mi du moom moo waroon na ñëw. non honnêtement maire maire adjoint waroon na ñëw mais kooku passeport bi du moom mii nag nga xam mooy taxaw yoon yi far jël place bu comme je t'ai entendu sans qu'on me demande, d'arranger le, le barcadeur. Voilà, où il faisait ses ambitions, tout, parce que je suis en train de l'aménager, je suis en train de faire un problème. مجوت بإذن الله من سطوة الهداية لكنا للخل لي بر ما يرقى أغاثني الأناس نمن جيد من قضى لي بر ما يرقى مدادي وأقلامي ولوني وكلكلي وجسمي لمن لي وجالس والوهبان منادي وأقلامي ولوحي وكالكلي وجسمي لمن لي وجالس والوهبان نويت له شكرا كثيرا كما ما دنا بي وسفي ولي رادهم درا ولي